sallallahu alayhi wa sallam wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam wa li habbil mustafa xayr shiyam mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew gannaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala jullu ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaqa yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko te àggale ay naaram noonu la ñuy nuyoo mbooleem waa réew mi yëpp ak mbooleem soppay daara mbooleem soppay alxuraanul karim ci émission bu am solo bi ñu leen amal muy am ci alxamis bu jiitu ci weer wi tey jii nag mooy fukkeelu numéro ak ñaar ñu ànd ceeg borom xam-xam muy sëriñ Maxtaar Kebe moom seex Salif Mbacke mi ngeen xam xam ne moom la ñu baaxoo àndal ci waxtaan wi mu jëm ci wàllu boole alxuraan yi mooy baat yi nga xam ne dañoo bokkul fuñ ne te bokku nuñ leen bindee loolu mooy boolee ci alquran di fàttaliku rek waxi Seex Saalihu Mbàkke yi nga xam ne duñ dañ di ko wax ndax mooy suñu lay aw lay ci taxawal émission bi dañuy alxu lislaam alquran bu doon aw tool la boole mooy li ko ñàkk ba alquran ruurul kon mañ ñooñu yàlla leen yàlla fay ndax liggéey bu am solo buñ daj ci alquranul karim àggale ko fu fu so kawe kawe kawe di gërëm itam mbooleem ñi nga xam ne ñooy coordonné émission bi ba ngeen mën cee jot ci njiital Alaaji Fàllu Sekk ak sëriñ Dame Touré ak kilifa kër gi muy alaaji sëriñ Seck yàlla na yàlla guddal fanam te may ko tawféex ak njabootam waaye fàttewuñ suñu caméraman suñu technicien sëriñ Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy monté yi yëpp ba mu mucc ayib ngeen mën koo jot ci chaîne YouTube yaatal mbindum alxuraan laataa ñuy dugg suñu waxtaanu tey nag dañuy bàyyi ki nga xam ne moo ñuy defal waxtaan wi ñu ci ànd ak moom muy sëriñ Makhtar Kébé mu Cheikh Salihou Mbacké sëñ Maxtaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Omar maa ngi lay nuyu bu baax Silla di la ziyaare di nuyu sëriñ Mbàkke Sorang suñ mbokkum daara mi ñu seqal léegi émission waaye di nuyu sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy jël wax ji sottax ndikk ko bañ mën koo jëriñoo tàmbalee nuyoo bi nag ci kilifa jataay bi di alaaji sëriñ Seck C3S di ci teg sëriñ Fallou Seck borom pas-pas bi nga xam ne. lii lépp ci ay xalaatam la génne boobaak léegi ci taxawaayam bu rafet ci lay doxe di nuyu sëñ Dame Touré di nuyu waa c 3 fu banqaas bi mën a nekk ci biir réew mi ak fépp fu mën a doon ñi ngi nuyu it bokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal émission bi te mooy waa daara ndax lañ xamoon ci boole démb dangay mokkal raxas alluwa bind ca genn wàllu isib ñu naan ko nisif te doo ko geestu bu ko sëñ daara bi topp ci suufu àlloo ji bisu set ci lay defal ñeenti boole ba juróomi boole ku nekk xam na ne bis bu set nga am ñeenti boole ba juróomi boole boo ko defoon tey wenn weer defe naa trois fois quatre la da ngay bëgg am lu baree bari ci ay boole kon boole noonu la ko mag ñi daan toppee isib ju nekk ak la ca nekk ci ay boole ba nga ne minal jinnati wan naas kon tey bu ñu ko seqee ak waa daara tam ñor leen lool am na ci ñoo xam ne ñu ngi jot seen i cant ah ak seenuk safoo ñeneen ñi it jotuñu ko waaye xam nañ ne ñoog ñiñ jot ñoo bokk benn gis-gis te mooy lu baax rek leen ñor alxuraan rek leen ñor ñi ngi nuyu ñëpp tey ziare ñëpp jërëjëf sëriñ Maxtaar ci nuyoo bu am solo boobu jëm ci waa daara waaye jëm ci mboolem ñi nga xam ne rek soppay alxuraanul karim lañ yàlla ñu ci yàlla boole ndax kenn du ko nekk di ko rëcc àdduna di ko rëcc àllaaxira kon suñu waxtaanu tey jëm ci wàllu boole laaj bi njëkk bi ñuy laaj sëriñ Maxtaar mooy tux si ngeen tux si ngeen moom lu mu ci lu mu doon ci boole tuxsi ngeen naayo naayo mooy ñeent ci pël ci pël wala tux zina gallaay gallaay mooy mooy ali imran ali imran wala tux sooni yaar la mbóore hóot tomblaaya xijiri boo demee ci sootu hóot wala tux ja dafa mbóore muy amu fa laaya bu ne tomblaay muy dafa dij laayo ma nga dij laaya xijiri mbóore ca hóot wala tux si muy ñeent yoo xam ne toxsi lañ moo tax ñu ne toxsi ngeen naayo wala toxsi naa galaay wala yaar la mboore hóot tombalaaye hijjiri wala toxsooni ca sonra jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf sëriñ maxtaar ci tënk bu am solo boobu jëm ci tuxsi ngeen bitta taara bitta taara moom ban wole ci ban wole ci ñëw bitta taara yat mhm. bitta xuuti laan Mm-hmm. bi tayyibi mm-hmm. jigéen mm-hmm. bi taaxiyati ca xaaqa laan mooy baqara jigéen mooy nisaa yi ñu ne bi tataara yat bi taaxuuti laan bi tayyibi jigéen bi taaxiyati ca yat jërëjëf kon bi tataara moom lañ tënk mu ñett yoon la ñëw ci alquraanu karim jërëjëf sëriñ maxtaar ñetteelu laaj bi gennuk alim ñaaru naaro gennu gëléem gennu gëléem ñaaru naaro gëléem de xam nañ ko mala buy dox la mm-hmm. bu ko ñaari naar toggoo kon ñaar ñu xonq nekk ci kaw gëléem ga mm-hmm. baat bi dafa am ñaar ñaari liif yu xonq moo tax ñu tëdd ñaari liif yu xonq ya ay naar mm-hmm. gëléem gañ war nag mooy ci benn baat bi mu ne gennu gëléem ñaaru naar muy ñaar ñu xonq ña ña nga ca kaw gëléem ga kon ñaar ñu xonq ña ña nga ca biir baat ba macha allah jàmbaar lañ. sëñ Moxtaar euh, li may jànge fii. Mhm. laataa ñuy ñëw suñu ñetteelu laaj. Mhm. mag ñi décomplexé bi ñu décomplexé seen bopp. ba li ñu xam. Ah. sottuñ ko ci làngu jàmbur. li ah, mu lay njëkk a poussé mooy. Ah. di nga bëgg a dégg làng wi. bëgg xam li ñuy wax. alay na leen yàlla fay. loolu rek ngay njëkk a jàngee ci wax ji. Mhm. mooy. Hmm. ki jàpp ne man damaa xam. Hmm. te li ma xam fii sottiwu ko ci beneen langue dee su ko jëriñoo comme xam-xam. waaw man ñu loolu génn nañ ca bu yàgg yàgg. génn nañ ca loolu lu am solo la. loolu rek. waaw benn baat bi. Hmm. ñaar ñu xonq nga ca. baat bi mooy taxaw taxawaayu gëleem ga. liifam yooyu mooy taxaw taxawaayu ndax liif yi daa naar. dafa am liif yu ñuul. ak liif yu xonq. mu ne nag liif ya dañoo xonq. kon ñoom ñaari ñoo ñu xonq ñoom ñaari liif yi ña nga ca kaw baat ba ni ñaari naar nekk ci kaw gëleem ga. maanaam pédagogiquement ma ngi dañu raw ëpp na sëñ Maxtaar boo xoolee lu mel ne tey lu mel ne tey racine carrée ci mathématique waaw ah. bu ñu la ko jàngalee ci tubaab mhm. bu la ko mañ ñi tënkalee tënk bi gën a gën a leer foof te ci saw làng lañ la koy waxee la koy wax te kenn doom xam-xam ci làngu jàmbur jazaakumullaahu xayran ah, loxatul umm waaw wala yéen loxatu sëdd yi dëgg la bi nga namp waaw bi nga namp mu ne mhm. wal waalidaatu mhm. laan wal waa lii fam googu ak li daa waa gi ak daa gi ñaaru naar lañ lii fi yëpp dañoo xonq te ci benn benn baat bi lañ wallaay ñu ne wal waalidaatu laan al waalidaani yett la yépp nga jigéen wa daakiraati laxsaab fa zaajiraati baam baam mooy euh, saafaat saafaat la mu yooyu yépp waa ak daa ca wal waalidaatu waa ak daa ca waalidaani zaa ak raa ca wa daakiraati za ak raa ca fa yooyu yépp ñaari liifam yi dafa xonq te ci benn baat bi mu nekk mooy niroog gëléem gi dëgg la dëgg la macha allah. jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral bu am solo boobu jëm ci gennu gëléem ñaaru naar ñeenteelu laaj bi mi ngi jëm ci sadidan jorngel sadidan jorngel wan boolee ci ñëw jorngel mooy lu wow ci pël waaw jorngel mboccoor mooy lu tooy sadidan moo bari lool ci alxuraan mais sadidan moom mm-hmm. bariwu ci comme waxuulu xawlan sadidan sadidan mm-hmm. mu ne sadiidan jor ngeel yaar la mhm. jigéen ak laxsaab jeex na jeex na ba sadiidan goo ci alxuraan day tooy kon baatu sadiidan ñaari nit ci alxuraan jigéen muy sootu nisaa sootu laxsaab amaatul feneen amul feneen macha allah jazakumullahu xayran jërëjëf sëriñ maxtaar ci leeral yu am solo yu jëm ci sadiidan jor mhm. ngeel mhm. juróomeelu laaj bi mi ngi jëm ci xuntongu xuntongu moom lu mu ci boole xuntongu juróom tong nag mooy xaalonk ñu ne xuntongu juróom axon axon yaar la jigéen ak mbargaan bar saxun yaar la moomi nag bayaan cheykhun kabirun ca xasas xuntongu juróom ndeysaan macha noonu lañ ko tënkee woon ok macha allah shiru mboccoor waaw mboccoor sin su tooy kon mboccoor yi ba tey day dugg ci pël de ñu ne shiroo mboccoor juróom yaar ñu ne ah wala tubaashiruhunna falaana baashiruhunna yépp nga laan mooy baqara wa aashiruhunna jigéen mooy nisaa yi fastabshiru baraan wa abshiru tafsil fantashiroo yaar la laxsaab ak jumaa shiroo mboccoor juróom yaar jërëjëf ci shiru mboccoor suñu juróom ñaareelu laaj mi ngi jëm ci muttaxidaati naar muttaxidaati naar moom wan boole ci ñëw muttaxidaati naar ba jigéen mhm. muttaxis yi ñëw leen ba jub njoogu ba jom njóogu mooy mooy mujj ca njóogu njóogu mooy ban saar mooy maa idati maa ida jërëjëf ñu ne muttaxidaati naarub jigéen la mhm. muy liif ga da nga koy naaral mbaa mu daan la mhm. muttaxid yi mhm. ñu leen ba jom njóogu muy boo ko naaree daanu day xoo day day ñuul deesu ko naaral mar ñu ne muttaxidaati naarub jigéen muttaxid yi ñu leen ba jom njóogu mooy maa idati macha allah jërëjëf ci tënku woowu jëm ci muttaxidaati naar suñu juróom-ñetteelu laaj mi ngi jëm ci ka jëlli taara ka jël taara juróom. la ñëw ci alxuraan. waaw ka taw di shuara. Mhm. ka wulali luqmaan. Mhm. ka di ka ramiimi sa zaariyaat. Mhm. ka dihaani bayaan. ka sariimi ca xalami. ka saaxibil hooti bokk ci takkala. kon ka nga xam ne nga def lii fag laam mu ne ka jël taara juróom ka taw di shuara ka dulali luqmaan ka ramiimi saariyaat ka dihaani bayaan kasarimi ca xalam yi asbaxat kasarimi fatanaadaw musbixiin jërëjëf sëriñ Maxtaar ci tënk bu am solo woowu ka jëlli taara suñu juróom-ñetteelu laaj mu ngi jëm ci ndawum si la njeego si la yi dañoo bari ñu ne ndawum si la njeego kon jeego itam dañu ñëwaat ci pël ba tey juróom benn xëy na daa mel ne boole yi nga indi yëpp baatu pël nga ci de pël la xanaa juróom-yaar yi dee ko ci génn waaw dëgg la <laughs> ndawum si la njeego mhm. manaa zila ngeen yaar yunus ak jaal manaa sila sila la de mhm. ngeen mooy rase yi mhm. kon génnee naa ñaar mhm. manaa sila ngeen yaar yoonu sag jaar fata sila la naxli ngeen gaa fay daan ndaw ku ko def leneen du dul rase yi daanu na di la tëhi laañ gaa fay daan ndaw sila la de waaye daal ji tooy la ma daw di la forxaan taat gaa daan ndaw sila la de waaye taati daroo la waxu sila ca haadiyaat riidu gaa fay daan ndaw. Mhm. baatu riidu noonu ko leeral. mooy sàll mooy sàll jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah Serigne Makhtar kon loolu mooy waxtaan wi ñu leen amal. Mhm. muy fukkeelu numéro ak ñaar ci boole yi ñu leen koy amal weer wu jot alxamis ba ca jiitu ngeen mën ko am fii ci seen YouTube yaatal mbindum alxuraan di gërëm ki nga xam ne moom la ñuy defal loolu waxtaan wi di am fierté loolu nag ndax xam-xam xam-xam rek la tudd. ak ku ko mën a yor ak nu mu mën a sant ak fu mu mën a dëkk xam-xam dong la tudd benn waa ju baax sëriñam da koy jàngal mën naa ko tudd sëriñ Aliou Guèye taalibi alaaji malik la radiyallahu anhuma nee na day jàng fu waaye daal bi ko booleeg alaaji Malick radiyallahu anhu nee na bu jëlaan téeléem jàkkaarloog moom daal jàpp na ne mbooleem luy ay xawaami ci yim xamoon da ko koy leeral ci jam ci façon bu yomb yomb nag pédagogique la nit mën naa jàng ba xam li mu xam waaye mënu koo transmettre ci kenn waaw moom la doon wax naan ca marsiyam ba ba mu génne àddina wa ida nahnu jinaa nahwahu min taallumin wajadnaahu sëhlan layinan lam yusaddidi waaye maxtaar yàlla na la yàlla defal jàmm ndax li ngay wax bu leerlu woon ci suñu bopp duñ ko mën a leeral kenn te ñii ñuy seetaan ñoo gën a comprendre li ñun ñuy laaj kon ñii seetaan ak ñii laaj ñoo ci bokk yam ñëpp ci kenn la ñuy jëriñoo muy yow yàlla na yàlla taxaw ndamal alxuraan nga tiitaru alxuraan nga lii dafa raar dama koy wax jamono ju ne boole yombul nit mën naa am xam-xam te du ko mën waaye ni nga ko maîtriser nii di ko joxe ba noppi loo ci joxe rek joxe tegtal ba loolu tawféexu suñu borom la yàlla yàlla defal la jàmm waaye ñi ngi ñaan yi ñi ngi ñaanal yàlla itam ñi nga xam ne ñoo ñu jàppandalal émission yi ba jullit ñëpp mën ko am gratuitement muy compagnie Serigne sekk ci njiital alaaji Serigne Seck ak ay rakkam ak i mbokkam Serigne Fallou Seck Serigne Dame Touré fàttewuñ suñu mbokkum daara sëriñ Mbàkke Sourang émission bu am solo bi ngay am ak moom muy yaru ak yare nga xam ne émission la boo xam ne damay wax ne émission bu nouveauté la bara ngeen wàcce ko ci suñu làkk nag wolof boo xam ne ñëpp ko mën a jëriñoo mhm. loolu yàlla na leen ci yàlla fay di sant bu baax a baax a baax sëñ Matar euh, ñi ngi ci fukkeelu numéro ak ñaar ci boole yi laataa ñuy jàll rek nga tàggatoo waaye ana nga ñu ci mën a tënkal biñ tàmbaleeg léegi lii dañ ko daan jàngi ci ay daara yu bokkut daa nga dem ci sëñ daara mu am yii sëñ daara bee du am yee foo gis ko bari boole rek tuxu na ci ay daara ba tàyyi benn internat rek du ko jàngale kii daa am yii kii am yee li ma ci jox misaal mooy jàngale jàng naa ci koo xam ne man mooy sama sëñ daara mooy yendu këram di fanaan këram benn waay bind fa nastan siqu def ko ak xaaf te man waa ji dama fee dabu si jàng waaye jàngalu ma lépp mhm. am na fu ma jaar mhm. ba may door a ñëw nag daf maa ñaawe woon njort sëñ daara ba mm-hmm. ndax daa defoon ne dama ñëw di am na lu ko lañ ko daan tuddee ñëw di tay tay lu man alxuraan ba noppi di wane ne mënoo alxuraan mm-hmm. bëgg a nattuwaale alxuraan yi sëñ daara bi mm-hmm. mu xool li ma bind ne ma yow mi da ngay jàng ma ne ko waaw ni sifas xulaw na bikum yàlla xam na ko mu xool ko xool gisu ci benn fóot te gis na ne ki bind lii moo ko dàq bind moom sëñ daara bi mu ne ma dama lay laaj ndax da ngay jàng si wala da si ma damay jàng si wax dañ tàmbalee maak moom ñu tënk bi mu demee ba dongab daara bu def nastan si ko xaaf ak ngoon la ma ne ko lii de amoon naa ci boole sama sañ daara man may fanaan këram di fa yendu di tari ci moom ma ne ko amoon naa boole wi xanaa kon joxuma ko sëñ Omar mu ne ma waxal ma ne ko gelle wi cas ngeen jeego maanaam sax laan fan salaxa laxaraab fa itan salaxa baraan fa yen saxu laxoo nga xaji nas laxo jaal nas saxo ci jaasiyati mu ne ma am mooy kii am yii kii am tey nag bi ñu demee ba toog fen di ci wax ak ay junni nit kenn jógu ci di ko wëri bay xam ko ko am ak ko ko ñàkk. ñoom daf leen di dikk rek directement noonu. Mm-hmm. nga xam ne xamuñu boole wi foo ko jëlee mi ngi mel ne ceebu jën booy lekk yéen ñu sant si la. Mm-hmm. kon laajoon bala ngaa tànk ñun la jën wi fu mu jógee. ngay lijjanti ba xam yaraax la am uh, fële nga laal sa sa bopp su ñu ne bu laal fu mu jógee pootu la wala feneen. nga war a téléphoné waa Pout wala nga dem fa. ñam bi ji lépp rek loo ci bëgg a laal ñu laaj la ko ndax ndax dana sotti. déedéet waaye dañoo jël lépp rek jalal la ko. Mhm. foofu la alxuraan toll ak xam-xam. dëgg la tey jii possibilité bi am nga toog fii di wax boole yoo xam ne yow ñi la ko joxoon ak barab ba ya nga jëlee woon. na mu wutee. Mhm. nga seet jox ko benn waay boo xam ne yëgut lu xew. xam ne ci ëpp ci ko jëlee woon dundatuñ. kenn dundatuñ. dëgg la dëgg la. te du benn du ñaar du ñett du ñeent. Mhm. nga seet seet dajale ko fenn ne waaj bul ñëw toogal ma yónnee la ko ci ak ak fiil. loolu bokk na ci himaali bi nga doon waxtaanee. fiil ga ñëw indil la ko ci sa téléphone. Mhm. nga xool ki koy wax dégg muy wax nga koy gis te xëyaloo ko tool gontaloo ko tool. Mhm. àllarba ak dibeer la ko daan waral ci donga mhm. wuti ay boole. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa mbokk yi seen émission boole alquranul karim mi ngi noonu kon ñu joxaat leen dig daje ci yeneen jamono.